télévision future euh, Média euh, heure bi si jotee xam ngeen ko soir d'info ci ñaareelu pàcc bi ñu war a dalal gannaaw le vingt h dinañ dalal Rokiatou Gassama moom mooy présidente COSEF euh, présidente it coalition bi nga xamante ni moom mooy. Euh, moom mooy des violences post électorales yi nga xam ne amoon na fi euh, dina ñëwaat ci situation bi nga xamante ni euh, amoon na fan yi ci ci réew mi wutum jàmm gi ak i tamit yenn artu yoo xam ne ñu ngi koy dégg ana naka moo ci gis-gisu lan moo ciy gis-gisu COSEF ak yeneen ak yeneen dina ci waxtaan kon. ak Rokayetu Gassama euh, gannaaw euh, le 20 léegi léegi euh, dañuy dalal Mamadou Thior moom nag mooy président du CORED bu ñu déggee CORED moom mooy ñun suñu tribunal waa waa journaliste yi kon Thior moom mooy suñu président mooy juge bi nga xamante ne moom moo yor journaliste yi maa ngi lay nuyu Mamadou Thior. maa ngi lay fay Binta. maa ngi lay nuyu Barthélémy. maa ngi lay fay Binta Diallo di nuyu Coor également. Barthélémy maa ngi lay sama jaami moom. <laughs> ñoo may seex démb ba léegi. tey moom ñoo aak moom. Coor <laughs> fan yi nag dafa am euh, ay discours yoo xamante ne dañu koy dégg euh, muy jógee nag bàyyeekoo ci euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite yenn parti politique yi ku nekk naan diw sama journaliste diw la. ba gis nga li xew bi fi manifestation yi amee ñu attaqué sax yenn yenn maison de presse parce que il yuy a eu quand des déclarations un peu malheureuses sur la question déjà est-ce que loolu am na par rapport ak traitement bi nga xamante ne journalistes yi def nañ ko ci wàllu bi ak itam euh, yenn information yi yenn leader politique yi di def bay indi dérive yu mel noonu. waaw jërëjëf Binta bu ma nuyee ñuy seetaan euh, xam nga euh, ñun bu ñu nangu woy politique yi. di ñu féetale foo xam ne féetewuñu fi mhm. loolu buñ ko nangoo rek mooy que ñu ñu ngi nañ dugal suñu réew si gutta mhm. te misaal bi ma ciy joxe li xew Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire xam ngeen ne ci loo xam ne ba léegi mu ngi wëy mhm. tolof tolof yi amoon ci euh, bi Laurent Gbagbo faloo surtout euh, coup d'état bi bi amoon 2002 bañ fa jógee euh, journaliste dafa nekk ku nekk dafa am benn pété boo xam ne dafa fës da ngay dégg ñu naan journalu PDC yi journalu FPI loolu nag eggaguñ ci fi mhm. te loolu buñ buñ ci egg parce que li liy raam ci ñag bi la jëm bu ñu nangu muy ku far ci nguur gi ku far ci ku jë ci ku jë politique bi. Mhm. ñu naan ñi ay journaliste Macky lañ ñi ay journaliste Ousmane Sonko lañ. Mhm. loolu buñ ko nangu. nekk nañ nekk ay ndey ji seex lañ ñu xamee woon parce que luñ ci manti wax 2000 liggéey bi journaliste yi def mu ngi fi tege di tege liggéey bu rafet lañ def ba alternance boobu am 2012. Euh, ñu ñu ñu tollantiwaat ko 2019 gaa man mën naa wax ne sax li ñu xaw li ñu dund ni 2019 gisoon nañ ko muy ñëw parce que 2019 gis ngeen gis ngeen lañ naan def di joxe résultat yi laataa ñuy ñuy pare affaire yu bëri jaar na fi loo xam ne nasaxal na suñu crédibilité te loolu aussi il faut ñu nangu ko ñu mën war a xoolaat nag tax taxawin bi bu ñu nangu ci wàllu féewale boobu bu ñu ba ba ba nangu ko rek mooy que ne baaxul ci ñun. mais lu tax ñu war a dem tey ba homme politique yi war a féewale journaliste yi parce que dafa mel ni féewale nañu déjà bu ñu demee ba naan kii mooy journaliste su diw kii mooy journaliste su diw loolu lu tax ñu war a yegg ba foofu ak ñoom. waaw parce que dañu manqué solidarité Binta. Mhm. man damay joxe misaal euh, nguuru Abdoulaye Wade jàppoon nañ fi moo jamal Diagne ñëf ko ci kaso bi mhm. ñëpp a mobilisé wu même man mi nekk RTS dañu mobilisé wu dem marche ñun ñëpp a nga fa ñun ah. ñëpp a man ko nekk benn say bi ñu mhm. génn moo jamal Diagne ci kaso bi mais loolu dañ ko nemmeekatul mhm. xoolal euh, li li li fi xew li fi mujjee xew bi ñu coupé signalu suñu naataango waa Walf ak euh, waa Sen TV waroon na am benn solidarité bu dox parce que loolu loolu day day kii euh, je me rappelle ma l'époque Madiambal dañ defoon édito bu saf wax ne la monstre est encore debout wax ne Abdoulaye Wade ah, lañ ko yokk ko lu mel ne xeme loolu bu dee dañ ko gis mu mu nekk fii dellusiwaat bu ñu ragal nañu wax nañ ko wax taxaw taxaw benn say wone ne li nga xam ne moom la ñu bëgg a teg duñ ko nangu parce que gis nga crédibilité nit moo koy jox soow bu fekkee ne da nga ñàkk fayda ñu bëgg laa da nga bëgg da nga bëgg bàyyi ñu lay ñàkkal fayda ci yow la mm-hmm. parce que ak nu mu manti demee foo manti muy média service public mooy média privé personnalité sa personnalité nga war a dégager ak lu fa mënti xaw c'est vrai am na ligne éditoriale même loo xam ne bu la nit ki xoolee xam na xam na xel ne yow dina xam lan la mën a defloo ak lu la mënta defloo xam nañ ligne éditoriale am na fi mais ñun si suñ bopp ñoo war a xoolaat suñ bopp si wàllu taxawaay bi gën a yokk suñ personnalité waxuma ne amuñu personnalité mais mais gën nga fulal suñ bopp ba yenn yi sax nit ki gis la di di ko di la ko ñemee wax sax du ko du ko ñemee parce que loolu si taxawaay taxawaay bi la. d'accord euh, mais mais Thior est-ce que loolu dina dina dina yomb. Euh, parce que wax nga ko 2019 gisoon ngeen ko muy ñëw. Euh, dagu leen yoon wi tey jii yegg si na ci niveau boo xamante ni pratiquement kër gi sax mën na am ligne éditoriale ni nga ko tuddee léegi muy ligne éditoriale libre mais parfois ci liggéey bi da ngay sentir ne kii dafa am penchant pour diw est-ce que dina yomb euh, parfois le journaliste bàyyi fële éthique ak déontologie am jëlal boppam tax tànk taxaw. waaw xam nga li ci li ci nekk mooy que ne gis na loo xam ne ay fee laaj lan moo xew. Hmm. parce que bu fekkee ne yow da ngay def commentaire mën nga def commentaire commentaire bi sa libre mën nga nga wax sa sa sa li nga xam ne moom nga xalaat sa commentaire mais bu dee loo xam ne li fi xew comme comme li nga xam ne mooy Ali Kalaj l'affaire Ousmane Sonko Adji saar ñu nekk ci fay ku nekk. na joxe fee lan moo xew parce que da di loo xam ne ba léegi xamuñu exactement ce qui est comment ça parce que parce que mm. enquête enquête baa ngi door. Mm. ñuy ñuy doog a jàmbar mbir mi am na taxawaay boo xam ne dañ ci dañ ci war a tey ci lu bëri parce que c'est vrai ni mu mel. surtout que ay xibaar yu bëri sax jib nañ ci mbir dafay jib te xam nga loolu li indi souvent taxawaay bi tey xawoon na sax xam nga entre temps boo xoolee. ni euh, xarala yu bees yi yokkoo tey askan bi souvent du ñu ràññaatle kan mooy def taxaw euh, taxaw kan mooy def liggéey journaliste ak kan mooy def liggéey journaliste te là où on est attendu c'est-à-dire ñu gën a wone ne gis nga suñu métier bi dañ koy jàng dafa am ay charte parce que euh, information même boo nekkee live nekk en direct du ne lépp loo jëlee ci xibaar moom nga yóbbu ci penc bi mm. même boo nekkee en direct dafa am taxawaay boo xam ne moo la war parce que misaal misaal bi may joxe mooy nem euh, ndeysaan euh, GIGN bi loxo bi dagg. Mhm. mais xool am na réseaux sociaux ñoo xam ne am na sa sit site internet yoo xam ne dañu wone loxo bi fi mu daggee. affaire bi di mais loolu jàngaluñ ko benn benn euh, Euh, école lu journaliste voilà bala bala ñi ñi ñu rey booy bi ñu njëkk a rey bi ñu naa nga gis ko mu tëdd di mais loolu ban école lañ ko jàngale ah, xam nga loolu nag foofu bu dee bu dee yow da nga ne journaliste nga uh-huh. mais bon li ñu alikala gi mooy que ne xam ngeen ne depuis 2010 dama koy fu ma dem wax ko li li ñu nemmeeku mooy dañ nasaxal ci wàllu code de la presse bi indi naa ko sax mm-hmm. bi nga xam ne waroon nañ ko wote mm-hmm. ci bi Abdoulaye 2010 ñu def deux ans ñu bàyyi ko assemblée nationale ci affaire dépénalisation affaire ñu ñàkk fayda mm-hmm. euh, Macky Sall ñëw pendant cinq ans il a fallu ko ñun ñu mobiliser wu ba def marche ñu roog ko adopté donc gis na diggante boobu te gis na bañ bañ ko adopté 2017 euh, njeexitalu weeru janvier bi lañ ñuy doog a signé ñaari décret yi nga xam ne moom moo waroon a jëmmal affaire bi ba mu jeex tàkk donc si diggante bi xoolal fukki at yoo xam ne amuñu benn loi bu ñu tënk donc lu neex waaye def donc mu nekk misaal bi ñuy joxe rek kër goo xam ne amatul buntu amul parentaire ku nekk ñëw dugg. parce que am yokk ci nag yokk ci nag réseaux sociaux yi nga am ne. waaw benn Barthélémy Ngom mooy taxaw créer réseaux mais même loolu sax boo xoolee site d'information yi aussi. loolu sax boo xoolee li ngëneel bi nga xam ne bi ñu càmbaraat euh, texte bi. xoo bàyyi nañ ci xel parce que bi ñu jëlaatee texte bi. Euh, di ko càmbaraat pour ñu wote ko euh, ay mil 2017 yooyu dañu jël en compte réseaux sociaux yooyu. parce que dañ xam ne xarala yu bees yooyu si affaire journaliste la bokk donc mënuñ koo bàyyi mu def si ginnaaw mais dañ leen di wax ne lii dafa am loo xam ne encadrement la laaj tey boo xoolee réseaux sociaux lan lañ ci wax site internet yi képp koo xam ne da yor site internet ak képp koo xam ne da nga ko nam a ubbi lu mu néew néew néew ki ko war a jiite soit administrateur bi la euh, soit promoteur bi di nga def fukki at yoo xam ne si métier bi dix ans d' expérience luñ ci jublu gëm nañ ne ku def fukki at mais quand war nga mën a am une certaine responsabilité maîtriser le métier euh, de de journaliste. kii topp ci moom rédacteur en chef bi lu mu bon bon bon dina am juróom-ñaari at mu am un troisième journaliste ça veut dire que site internet bu ci nekk désormais bu ñuy doxalee texte bi euh, code de la presse bi. war na am trois journalistes yoo xam ne formés à bonne école waxuñu koo xam ne da nga dafa génn këram boo xamuñu xam xamul dara ci lay xew parce que loolu loolu lañ nemmeeku. Mhm. ku nekk yaa ngi créer sa di euh, gën a vulgariser ay photo yu gën a ñàng pour ay affaire vue yooyu parce que lay koppar bi lañ ci jiitu mais de ñu gën ko encadrer mais li nga xam ne moom laa wax si wàllu euh, assainissement bi mhm. ci lañ nekk parce que assainissement bi dafa jot parce que gisa fukki at yooyu yoo xam ne amatul woon loi bu ñu tënk mhm. ñëpp a ñëw dugg si xama dañ dem ba ràññeetul kan mooy journaliste kan mooy journaliste kan mooy technicien kan moo ko nekk mhm. mais loolu nañ ci jóg parce que ni mu mel euh, li nga xam ne mooy commission bi war a joxe carte nationale de presse dina tàmbali liggéeyam euh, altine fukki fan ak juróom ci weer bi mm-hmm. te loolu duñ ci duñ ci dellu ginnaaw képp koo xam ne carte boobu balaa ñu la koy jox si ay anam yu leer lañ la koy parce que euh, carte yi euh, buñ la la ko joxee ñaar ñaari ñaari yoon nga mën a nekkee journaliste mm-hmm. li li li code bi wax li code de la presse bi wax mm-hmm. mooy que ne da nga mën a génne école de journalisme am diplôme supérieur de journalisme CESTI ci la bokk ñun ñi foofu lañ génnee ay ISIC ay ISEC mais am na yeneen école yoo xam ne dinañu wax gouvernement parce que école boo xam ne gouvernement bi da ko reconnaître am na école yu bëri yoo xam ne dañu nemmeeku ne dañu naan affaire u tasuma waaw la ñuy la ñuy jàngale mais boo xoolee la fa nekk mais bu la ko kenn nettali donc mm-hmm. école yooyu faw ñu xoolaat yeneen école yi nga xam ne mm-hmm. euh, vraiment ñoom euh, dañ leen di euh, trier sur le volet mm-hmm. ne kat gouvernement bi yii gëm nañ ne mën nañ leen la reconnaître yi nga xam ne bu weesoo ay ISIC ak ak CESTI ak ISEC bi nga xam ne. ñu ngi ñu ngi góobu ça c'est le diplôme. ça c'est le diplôme léegi beneen beneen beneen bi. waaw Binta dañ ne da ngay am licence mooy bac plus 3. Mhm. bac plus 3 quand même ak lu niveau njàng bi faible. Mhm. gëm nañ ne c'est un bon niveau. nga boo amee bac plus 3 nga am licence. bu ko defee boo defee boo amee licence dañ da dem defi stage 2 ans. Mhm. dans une rédaction de la place. nga justifier deux ans yooyu boo justifier deux ans après léegi dañu instauré benn examen boo xam ne dañ koy def. Mhm. commission bi joxe carte nationale de presse dafa am en son sein mooy valider expérience moom la ñuy wax validation des acquis de l' expérience. Mhm. da ngay ñëw passer comme examen ñu càmbar la jox la ay épreuve bu ko defee bu fekkee ne nag jàll nga épreuve bi ñu mën la jox carte carte bi loolu la ñu ci jublu mooy relever niveau bi mhm. parce souvent mais tey boo nee jàlloo épreuve bi mënoo am carte de presse. génne nañ la ci profession bi est-ce que mu jur leneen mais xam xam non jur leneen. c'est-à-dire gis nga il faut que ñu xam li bëgg soit dañu bëgg métier bi fañ fa mu nekkoon ñu delluwaat ko fa parce que honnêtement boo boo dégloo anciens yi. parce que c'est un métier qui demande la culture générale. Mm-hmm. qui demande background boo xam ne mais. xam nga Barthélémy boo taxawee fii di wax Binta boo taxawee fii di wax mm. ñi ñuy seetaan c'est des c'est ki am ku am niveau damay joxe misaal rek mm-hmm. diggante ki am niveau CM2 ba agrégé professeur agrégé de l'université xoolal xoolal diggante mm-hmm. niveau jeune am ñoo xam ne ñoo la gën a ñu gën a jàng fuuf mais bu ñuy wax xam nga li tax suñu métier euh, métier mm-hmm. faw nga sóoraale les ces deux niveaux là extrêmes élève CM2 niveau CM2 élève agrégé agrégé d'université il faut booy wax il faut nga wax loo xam ne dina mën a dugg seen seen nopp mais bu dee yoo xam yow yow seen niveau dafa dafa faible mhm. te loolu dañ koy gis de plus en plus il faut que xale yi bàyyi xel ne du métier caaxaan mhm. c'est un métier boo xam ne c'est un métier loolu laay ñëwaat si acquis de l'expérience boobu ne par exemple mhm. am na CDI euh, contrat à durée indéterminée nekk di liggéey fenn pendant des années te jàngul mm-hmm. amul diplôme. Mm-hmm. tey jii bu ko tegoon te en concours ne ko répondre ci lii pour nga mën a accéder à la carte de presse nationale s'il échoue. Ah. kooku tey dina nangu ñu ñu génne ko ci ci profession bi. duñ ko jox carte nationale carte nationale de presse. donc il représente duñ ko jox carte nationale de presse te mën nañ considérer nekkul journaliste nekkul technicien. Mm-hmm. te dinañ am dinañ egg niveau boo xam ne carte nationale bi buñ ko joxee ba ay près d'ici euh, cette année euh, kii euh, mois de mars année prochaine ou bien ay deux ans. Mhm. dañuy wax désormais képp koo xam ne dañuy organiser événement. Mhm. ku wonewul carte nationale de presse doo mhm. accéder. ça veut dire que même carte de presse yi ñu am carte de presse maison yi ñu. mën nañ ko am nañu carte man ma am RTS. yooyu dootul amati. carte nationale de presse la am. dafay am ay avantages parce que comme ni ko yeneen pays ay États-Unis France carte nationale de presse dafay jox voyager même billet d'avion bi mën nañu ko wàññi parce que journaliste nga. mais kenn du ko mën a dupliquer. non kenn du ko mën a du ko mën a parce que on a pris un prestataire boo xam ne. vraiment liggéey bu mucc. gars yi dañoo xarañ ci xarala de. non euh, affaire bi présenté nañ ko bi ñuy lancé lancement bi le 1er mm-hmm. mars. Mm-hmm. vraiment liggéey bu mucc ayib ça il a pris son temps. Mm-hmm. carte numérique la. kenn mënu koo falsifier. d'accord mais renouvelable ou pas la carte. Euh, renouvelable c'est tous les trois ans. comme comme on le fait. mais dama bëggoon c'est vrai que carte bi lu baax la. mais journaliste bi nga xamante ne jox nañ ko carte am. mu dem di liggéey ci entreprise am. Euh, am pensant wu boppam. Hmm. wala boog mu am benn euh, kilifa bu nekk ci gannaawam euh, di ko manipuler euh, di ko jox xaalis ngir muy liggéey est-ce que loolu dina di ngeen ko mën a lijjanti bu boobaa. bien sûr looloo tax a jóg correct. Mhm. képp koo xam ne da nga jéggi yoon éthique ak déontologie xam nga loolu ça entre dans le cadre de l'éthique et la déontologie. Mhm. yow nga xam ne lii sa métier daf la koy tere. nit ñoo jox jox la xaalis pour def loolu loo xam ne waroo ko def. buñ ci buñ ci amee ay finde yu leer ñu yóbbu la suñ tribunal bi daan teg la ay daan te xam nga léegi correct doole bi ñu may mooy que ne léegi buñ la joxee carte nationale de presse boobu nga nekk koo xam ne yaa ngi doxal ñu jékki-jékki def li ngay wax ni def na su dul noonu correct am na sañ-sañ wax commission bi ñu nangu carte bi ci yow. bu bu ko bu ko defee ñu génn la si métier bi. xam nga ñun ñu ngi jéem. bu jéem boobu ñu ñëpp ñooy xam ne li liñ ci jublu mooy fexe ba métier bi ñu delluwaat ko fa mu nekkoon. parce que li nga xam ne buñ ko fa delluwaatul. man toujours misaal Côte d'Ivoire bi laay laay laay joxe. Côte d'Ivoire presse bi moo ko tas. presse mhm. journaliste ñoo ko tas ci parparloo boo xam ne bu fës la. te loolu journaliste warul a parparloo ay ndey ji seex. li mais aussi ngeen wax ak ñoom ñuy xoolaat seen relation yi rapport yi ñu am ak homme politique. oui mais li ñu surtout li ñu ki ma ki ma ki ma ki ma doon jàngal kenn si ñu ma doon jàngal métier bi nee na jour kii journaliste mën nga kii man nga. côtoyer homme politique di dem ak ñoom mais bu leen fréquente. Mhm. parce que fréquentation mooy indi lu ne. boo leen di fréquente da dem ba miinal dugg. Mhm. muy du homme politique ah, ak ñi yor wàllu économie mooy ñi yor koppar ay milliardaires ak yooyu yooyu dañ koy moytu aussi. parce que souvent dañuy réduire affaire homme politique mais mais gis na affaire lobby c'est pas que. le lobby politique y lobby économique. y lobby religieux. am na ci yoo moo moo ne même bu dee dëgg sax danga nga da nga da nga koy ragaloo et pourtant bon journaliste am na euh, loo xam ne moom moom bu taalul réew wala mu mu mu féewala ay askan. vraiment boo gisee dëgg bi wax ko. quoi que ça coûte. ak dégg nañu euh, CAP moom na maanaam dafa regrouper ay association euh, journalistes ci réew mi. Mhm. Euh, di réclamer ñu jëlee fi CNRA pour indi fi beneen structure boo xamante ne moom mooy gën a am xëy na mooy gën a mën a liggéey ci ci wàll wi. waaw xam nga xam nga xam nga kuréel boo gis. boo kuréel boo gis day def diir après dootul ànd ak jamono. Mhm. mooy ñoo xam xarale yu bees yi dans dans dix ans day gën a soppeeku. boo boo boo boo fàttale ko ACRT moo fi nekkoon. Mhm. ay ACA moo fi jaar na fi. Mhm. CNRA ñëw na CNRA depuis 2006 moo fi nekk donc fukki at ak juróom. Mhm. donc xam nga CNRA si wàllu euh, yenn kaay yi ñuy bind mooy quotidien yi. mënalu leen dara. Ah. mënalu leen si euh, wàllu régulation. donc mais arca bi nga xam ne moom la ñu indi. dañ dañuy gën a jox compétence régulateur bi. mu gën a def def liggéeyam ñëpp lay lay càmbar léegi. donc moo tax te li tax ñu ne dafa jot ñu ñu dem ci gën kii bi euh, projet bi ci boppam pare na. Mhm. li ci des mooy yóbbu ko conseil des ministres euh, après bu paree ñu yóbbu ko assemblée nationale. procédure parce que dañ dem ne aussi code de la presse bi nga xam ne dañ koy doxal li li gën ci ngënal mooy que ne arca bi mu mu mën a ñu man koo teg bu ko defee yëpp àndandoo. parce que loolu aussi day gën rafetal liggéey bi. mais bu arka oui vas-y allez mais bu fekkee ne CNRA dafa am foo xam ne descente na fa bu bu baax a baax ci ci wàllu transition bi gaa am na parce que xam nga souvent booy passé d'un euh, ci benn structure di dem beneen day am ay euh, une phase transitoire. Mhm. mais dafa am foo xam ne yenn saa yi euh, compétence am dafay dafa xaw a des. mais structure yi nekk yi tourner autour quand même de la presse bari na on a par exemple. Euh, patronat de presse bi CORED ci la bokk syndicat yi jeune reporter yi waxuma la gap waxuma rek gap bi mm-hmm. euh, structure yooyu yëpp tey jii yéen waa CORED mm-hmm. euh, su ma defoon dara man mii ngeen ngeen envoyé ma lettre wala ngeen bëgguma déglu bu ngeen ma dégloo bëgg ma sanctionner le lendemain je peux me mettre à la radio di di leen attaquer di leen fragiliser. Ah. gis nañ ko pas euh, lu si bare yoon. mais loolu léegi naka la ñu mën a def ba journalistes yi aussi am respect ci nga xam structure yu ñu mettre en place respecter loi yu ñu établir. comprendre naa lu bëri lu bëri li ngay wax parce que daf may fàttali sax euh, dafa may waxtaan ñuy def ñu koy wax cas d'école ñun waa Corée. Mm. dañu jël benn thématique mos nañ teg ci penc mi. revue de presse taaxuraan yi ñuy def mooy de presse yi gars yi nga xam ne moom lañ xawal léegi mhm. def nañ ba dugal ci bopp askan bi ne noonu la ñuy defee revue de presse mhm. alors que jàngale wuñ ko ci benn école ñu ñu indi affaire bi ci penc bi waxtaane ko indi ay kàngam ñu wax ñu ñu fàttali ñu rek parce que xam nañ ñu mu dem mhm. ne nii la ñuy defee revue de presse mais malheureusement tey dem na ba ñi nga xam ne ñoom ñooy ay vrai journal parce que am na xam ne xam nañ ñan dañuy def revue de presse te nekkuñu ay journaliste donc ñi nga xam ne sax ay vrai journaliste lañ dañuy toppandoo ñeneen <laughs> man même fois da da da mm. yi ah, mais faut faut pas ñu ñu ñu ñuy def mm-hmm. naka su dul noonu parce que affaire bi c'est pas que kale dafay def non loolu taaxuraan sax comme ni ko waajale du nee na nee na du du te weesu na théâtre ah. taaxuraan la def mm. donc yu mel noonu bi ñu posé affaire bi si penc bi man semaine bi ci toog ña nañ doon nañ doon ŋàññi mm. te mu laat dañ ñu amee amee ma si rajo bi amul lu ñu waxul mais loolu doo ko déglu booy def lu baax mm-hmm. xam nga ni nga xam ne boo koy wax mm-hmm. moytul te loolu dañ ciy jàngale donc moytul cest pour au moins nga xam ne lii nii lañ koy defee. mais justement loolu laa wax coor ñooñu waxuma sax man man waxuma kenn ñun ñëpp laa wax. parce que ñun ñëpp a yem mën nañ def ay erreur ñu ñu remettre nous à la à mm-hmm. mais bu fekkente ne du ñu ko nangu boo leen waxee. danañ danañ ko nangu ñu ko nangu léegi. léegi léegi loolu naka la lan mooy saafara bi naka la ñuy réglé loolu parce que wuute bi jusque là mooy que di ñëw correct. amuñu woon sañ-sañ ci wàllu wàllu yoon. Mm-hmm. mais correct dañ ko doxee léegi jox ko sañ-sañ ci wàllu yoon mm-hmm. tey boo defee naka su noonu dañ lay daan te mënoo ci dara mu neex la mu naqari. donc loolu loolu xam nga loolu loolu loolu voilé léegi. Mhm. képp koo xam ne da ngay def naka su noonu te bu njëkkaan bu ñu la ko waxee ngay nga ñuy jéem a défier. di ñu de jéem a diir mbagg. Mhm. ñu ñu woon la ne yoon moo fi nekk. Mhm. yoon moo ñu may sañ-sañ boobu. am na am am na si wàllu si wàllu balaa ngay am carte de presse léegi. balaa ngay dem euh, si commission bi. da ngay jaar si correct am na document bu ñu joxe léegi cutis lañ koy woowee. cutis boobu si ay say jaar daal la ñuy xool ah. bu fekkee ne yow mii. vraiment maanaam casier. <laughs> waaw casier judiciaire voilà. comme casier comme casier judiciaire noonu lañ ko defaree sax document bi. Mhm. donc xool yow sa sa liggéey bu dee gis nañ ne yow mii da ngay def naka su dul noonu. sama casier feesul. xama xamaguma boo boo buñ commencé lundi lañ koy commencé. maison la presse boo boo boo ñëwee buñ ko càmbaree naa la wax ndax sa cas bi baax mais coor problème bi mooy euh, c' est vrai euh, mbirum revue de presse yi ngay cité c' est mm-hmm. mm-hmm. euh, taaxuraan mais dafa mel ni taaxuraan boobu moo gënal Sénégalais yi de. Ah. am na ñu bëri yoo xam ne loolu la ñuy tàmbali loolu la ñuy tàmbali dañ leen ko imposer. xam nga xamuñu xam nga nit ki xamul. Mm-hmm. yow boo demee ba parce que parce que taximan bii déglu. foog ne comme euh, sama sama euh, kii comme Ahmed ni mu koy def Ahmed ay dama ko dama ko wax parce que loo xam ne ragal naa ko comme Ahmed ni mu koy defee. mu foog ne noonu lañ koy defee du noonu. boo xoolee exemple bi may joxe mooy euh, femme bi koy def Sud FM. day Mareem day Mareem day Mareem mais loolu la ñuy xaar ci revue de presse noonu lañ koy defee. du ñëw di def ay théâtre parce que li li ngay li wax nit ki da ko war a déglu parce que yow bu fekkee da ngay def théâtre da ngay des distraire nit ki sax mu mm-hmm. bàyyi xel ci li ngay wax mm-hmm. parce que xam nga xam nga affaire u théâtre affaire yu réel te moo ne information bi ngay joxe c'est information mm-hmm. sérieuse boo xam ne sa naataango moo ko bind bon euh, te euh, ñi ngi koy jébbal yàlla def na ñu ci bëri jànguñu donc yaa leen koy jébbal jébbal leen si anam boo xam ne dinañ la may xel dinañ la may nopp dégg li ngay wax mais boo fi nekkee mel ni kuy tayaan bala kuy taaxuraan tu vois bon dañuy dem ba foog ne loolu mooy mooy mooy li gën alors ko loolu jàngalewuñ ko fenn ñun digg diglewuñ ko ci kenn foog ñu dellu siwaat si li ñuy jàngale revue dafa am nu koy defee ñu delluwaat ci loolu alors euh, mi annoncé na aussi un sitting waaw euh, loolu moom ci lañ jëm euh, peut-être sax bu fekkee ne avant fin du mois bi bon xam ngeen ne defoon nañ fi benn marche bi ñuy bi ñu bëggee ñu voté code de la presse bi parce que dañ toogoon ab ci pendant juróomi bi Macky Sall ñëwee si nguur gi. Mhm. affaire bi itam ñoom itam farluwuñ ci woon. ba ñu def marche boobu le 3 mai 2017. Mhm. dañu gis ne li ñu nemmeeku ci fan yi te affaire Sonko bi ak Adji bi. Mhm. gën koo wone itam bu ñu yuuxulee. fa ñu dem baaxu ah. parce que parce que dafa ah. dafa dafa jot. ni ñi xam ne ñun dañu am gëdd si si réew. bu mën a wax démocratie te waxoo presse. parce que ak lu mu manti nu mu manti def nu mu manti mel ñun dañuy jël ay risque di wuti xibaar di ko indi nit ñi ci penc donc ñooñu wax waxuma ne nit ñi weguñu mais dañu ñu gën a dañu war a gën a wekk ci liggéey boobu ñuy def parce que liggéey la boo xam ne euh, gàcci ngalaama journaliste de manière générale nit ñi ñu ngi def seen liggéey ah, mais xam nga li am mooy que ne toujours li may wax rek day am peut-être boo jëlee euh, ay 10 pour cent yoo xam ne dañuy def naka suul noonu ñoom ñooy suul 90 pour cent dañuy def métier boo xam ne dama koy faral di wax gis nga duñ ñu may dara. ci wàllu erreur boo def. Mhm. Mhm. parce que dangay xool mois mois de mars bi 31 jours la 30 jours yi impeccable boo ñëwee antenne par exemple di def sa émission bi amoo amul benn problème mais 31 31 jours jour bi boo ci defee juumte. loolu la nit ñi def. Mhm. loolu la nit ñi jàpp. donc c' un métier boo xam ne c' est un c' est très exigeant. te bu fekkee da nga koy def te bàyyi woo ci xel foog ne ay caaxaan la. conséquence yi c' est des conséquences désastreuses. waaw mais yéen tribunal des pairs tey bu ñu koy wax euh, c' est pas parce que le journaliste a fait une ngeen convoqué ko. Mhm. bu jaree sanctionné ngeen sanctionné ko mais dañuy gis aussi que ñun journalistes yi dañuy def suñuy liggéey benn partie gisu si boppam. ay nit seeni nit dem ci réseau sociaux yi di la ko wax di la wax naka su dul noonu bay dugg ci sa ay vie privée yow journaliste bi euh, même boobu dul lire commentaire des fois dañ la koy plaqué nga gis ci yenn yi ça te fait mal mais dafa mel ni nous ne sommes pas aussi protégés par ça. waaw no loolu sax insulte yooyu ak yenn yi nga xamante ne loolu sax vraiment amuñu ci benn droit am nga am nañ mooy mooy SYNPICS mooy mooy gën a taxaw ci wàllu défense. Mhm. journaliste yi mais li ma waxoon ci njëlbeen rek. il faut ñu gën a solidaire bu ñu jamee benn journaliste ban nañu xosi benn journaliste ñëpp taxaw défendre ko bu fekkee ne mu ngi ci yoon laa wax de parce que yenn saa aussi bu fekkee ne dafa jàdd yoon ñoo ñoo war a njëkk a ŋàññ loolu xam ne def na ko delluwaat ko si si si si sur le droit chemin parce que loolu dafa am solo il faut ñu gën a solidaire suñu suñu suñu suñu biir même ay affaire dichotomie bi ñuy def genre média service public ay média privé ñëpp service public la ñuy def parce que parce que li ngeen di def nii li ngeen def nii c'est du service public mm-hmm. moo tax par exemple euh, euh, digression laay def foofu mm-hmm. boo xoolee code de la presse bu bees bi ñu ngi xeex euh, pour financement audiovisuel public mm-hmm. ñu mel ni RTS ñu mel ni Soleil ak APS ñu leen di jox ay milliards ñu doy comme ni ñu koy defee boo demee RTI radio télévision bu Côte d'Ivoire boo demee CRTV bu Cameroun ay milliards ñu mën a gérer seen budget bu ko defee li ñu nemmeeku mooy xëccoo bi ñuy xëccoo publicité bi ak privé yi publicité boobu ñu bàyyi leen ko privé yi privé yi gën a am gën a am koom gën a def seen liggéey mhm. parce que dafa am solo ci service public boobu ñu gën a dooleel li nga xam mooy organe privé yi ñu gën nit gis seen bopp mhm. te ci wàllu woowu sax gis nga loi bi nga xam ne moo moo jëm ci wàllu publicité aussi mhm. posé nañ ko bi ñuy def conférence presse cap bi mhm. parce que loi bi fi amoon mooy 83 la am loi boobu ba léegi sax appliqué guñ ko parce que xam nga loi Sénégal souvent mën nga wote loi ñuy xaar ay décret pendant des années yow boo ci farluwulee comme li ñu doon def xam nga ñun bi ñu wotee 2017 mhm. fu ñu dem ŋàññi affaire bi ba teg nañ ci ñetti at presque ñeenti a Euh, euh, commencé càmbar ak ministère culture communication bi nga xam ne mooy suñu njaatige xoolaat loi sur la publicité pour méngale ko jamono bu ko defee ñëpp ki si seen bopp surtout média service euh, public public le le privé mm-hmm. mais public bi du ñëwee par exemple RTS day bàyyi publicité bi yëpp par exemple mën na bàyyi ay jusqu'à quatre-vingt pour cent mm-hmm. parce que aussi vingt pour cent il faut muy dem wuti foofu parce que xam nga souvent

am koo xam ne moo koy euh, administrateur bi mm-hmm. li ñu ci jublu mooy que fexe ba vraiment léegi organe entreprise de presse la ñuy wax léegi organe de presse dafa xewi mm-hmm. vraiment ñiy liggéey ci euh, entreprise de presse gën gis seen bopp parce que pour nga bénéficier ci fonds boobu yow ñi lay ah. liggéeyee ku ci nekk cotisation sociale yi da koy respecté mm-hmm. boo ko respecté wala kenn la kenn du la finance te financement yi dafay souple de telle sorte que euh, pourcentage bi vraiment day day nul def liggéey bi investir sa entreprise. Mhm. ñi fi nekk gis seen bopp. mais du ne comme ni ñu doon gis souvent ñenn ñi nga xam ne aide à la presse bi boo leen ko joxee daanaka gannaaw ñu dugal ko seen poche. Ah. pendant ce temps là ñi leen di liggéeyal. nekk ci ay ay ay jafe ñu ngi lay gërëm Mamadou Thior. maa ngi leen di gërëm wax na ma jàpp si nag li nga wax nañ nekk benn. ndax def loolu loolu loolu rek moo koy faj. parce que loolu loolu lañ benn say. moo tax mi ñu ñu ñu koo réglé mm-hmm. Abdoulaye mm-hmm. ma jàmbal jaar ci kaso bu dee bu dee bu bu ñu attaqué journaliste ku nekk toog fi nga toog. di gën a ba kon bokk. ni ko Thior waxee rek euh, président correct nekk benn euh, bokk ndey bokk bàyyi sinon rek euh, ñi nga xamante ne dañoo nekk ci wàll wi bëgg ñoo tas euh, dinañ ñu tas te bu boobaa euh, suñu corporation rek euh, moo ci moo ci nësëx kon noog nañu gën a bëggante yéenante jàmm xam ne bu lépp weesoo ñun ñëpp ay xarit lañu foo dugg ci maison de presse yi am nga fa sœur wala am nga fa mag wala am nga fa xarit kon bu ñu nangu kenn tas ñu waaye nga ñu dem publicité rek dellu si waat ci plateau bi